objectif bi man loolu mooy sama xam ma jafe-jafe nga jégal ma ndax loo ma laaj rek naa ko def man nga fekk si moo tax waaye wax dëgg yàlla wax naa ko fii léegi ci biir leeral naa objectif bi mooy euh, enseignement Cheikh Ahmadou Bamba ay enseignement am njàngaleem ci lañ bëgg a sukkandiku ba ñun fépp fu Sénégal war a egg mu egg fa à travers l' enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba ci jaamu yàlla ci ngor ci jom ci jikko yu baax loolu ak ci développement toute de développement nag mu xadimatul alxidma c'est un tout c'est un tout waaw loolu même même même même xidma boobu nga xam ni dañ di wax politique xidma moom du politique mais mooy loo xam moo ëpp politique moo ëpp njëriñ mooy lan mooy nit ki dinañ fexe ba mu xam fi muy teg tànkam saa yu jógee. du doon ku ñuy nax day ubbi bëtam conscientiser nit ñi mooy premier objectif bi ci biir Touba ak à travers le Sénégal maanaam ay banqaas lay doon mooy ay cellules loolu mooy lan conscientiser les Sénégalais parce que xam nañ ni yéen ñi jàng ngeen am na ñeneen ñu jàng mais li ëpp Sénégalais jànguñu boo gisee li ñu dal daal ñu rek loolu la. parce que kenn conscientisé wu jour xamuñu lu fi ñu teg seen tànk léegi nag il faut ñu xamal leen li sen àq ak si yelleef à travers les champs de Cheikh Ahmadou Bamba xamal ni li fi indi mooy adduna yaatu na lool bari na lool waaye li ñu fi indi mooy jaamu yàlla lépp daal ci njàngaleem Serigne Touba lay dellu ak war may Touba nag war may Touba mooy respect bi ñu war a jox Touba ak li nga xam moom lañ fi war a def lépp. mais loolu loolu loolu c'est c'est évident ça c'est ça du kooku sax ne xëy na journaliste ngeen na ngeen na xool. du du mouvement boo xam comme les autres mouvements. et gis ngeen ñi fi toog tey jii kii sëñ Saliou la nekkaloon la intellectuel la cadre supérieur de l'État la Amadou Gueye boobu keneen ki sëriñ Saliou Salaam la ak ñeneen dégg ngeen ñu wax donc ñoom am na ñoo xam tey laa leen mas a gis mais lu tax ñu ñëw fi ça fait 40 ans xëyuma rek jóg damaa yoroon Murit Action ak fi xidmatal xadim loolu laa fusionné mu nekk alxidma ànd ci ñii ñëpp nu bokk ko di ni bii comme ni ngay dégg